ñu ni nee ñu ni nee ñoo bokk réew dëkk bi jaxasoo na yéen ñëpp dégg ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënuloon ñàkk léeg nga dégg ñu ne dinañu fayu dinañ dóore dinañu lii déedéet Il n'y aura pas de vengeance, il y aura de la justice. waxtaan amna. ay ndaw ñew nañ ma gis waxtaan ci ñetti poñ amul benn bu ñu def nañ ko ci respect mutuel élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laal bañ ma ne il faut ñu reporter élection bi ndax yow ak diw yi fa ngeen bokk ma leen sama bokkub élection mënul justifier sama bokk ci élection mënul justifier report élection mu ni Sénégal ba mu daj am na ko ma gën a mérité nekk candidat man mii waaye nit ak sa yéene yàlla ak dogalam ku ko xamul rek dangay ngay sonn kon lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañu dem naa ba ne samay avocat buleen déposé déposer mooy rabat bi tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a reporter kérok bi ñu nee déposé nañu loi assemblée wala dañuy def commission d'enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye mii ne ko non seulement suñu député dañu voter contre mais nañu attaquer devant le conseil constitutionnel. dem nañ ci ba yegg ci fo xamné ñañ doon yoni ci man ñuy wax ak man dem na ba ne leen ne leen seen kilifa bu mu démissionné mukk ndax lima jappone man ci constitution moy suñu démissionné article. 31 deuxième alinéa moy ñew moy ñu ci kaw suppléance te boba dañuy rebattre carte yi j'ai dû prendre beaucoup de décisions et je les ai prises seules parce que mënu woon jokkoo kenn bu ma ci jumoon ci ben rek projet bi tay jeex may sante yalla c'était pas évident dañuy sante yalla te jumuñu ci ben defena na kon

Il y a des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffraient dans les prisons man de prison bi ma suite lañ ma suite chambre salon double climatiseur télévision ñi fa ñëw gis nañu ma am sama gandim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di Vous voyez

suñu responsabilité en tant que autorité morale moy suñu amone prox ndoll génne ñooñu te yaqul dara ci liñu ñuy liggéey dinañ ko def loi d'amnistie bi coow bu né dégg nañ ko ci muy deuxième point bo xamné discuter nañ ci dañu ñëw wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def non-lieu nit ñi ñibi seen kër ah ñu ne dee rek ñoom loi d'amnistie la ñu bëgg mais suñ defee loi d'amnistie ça nous profite waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu àndee loi d'amnistie bi interpeller leen ministre de la justice bu dee léeg-léeg li bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg li bokk ci voté oui ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci see changé dañu néwon woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu dialogue loo booba jamono pistolet la won jamono ji nak bazooka la ah naka la ñuy parce que ñun ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba légui constance nga ñu xamee gisuñu lu fess suñu bëtt motax nak nag léralé yoy yépp di wax ni te li ma wax nii yëpp nag saa suñ ñëwaan ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan andil leen ma sama candidat ñu andil ma Bassirou dinañu toog 3 heures de temps 4 heures de temps je lui fais un compte rendu détaillé amul lenn lu ba def te waxuma ko ko amul. bu ma ko waxee ba noppi mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee la ca des léegi nag. weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla dese duñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bari dinañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw film film ko boy xajul fii de waaye dinañ ci yegg si ñu ni nee naa ñu ni nee na ñoo bokk